haybatan wa jalala wa absartu min za bahjatan wa jamala jamaluka unsun haybatun wa mahabbatuna wa anta atamul mursalina kamala bayna wa kulluhum هذا المكارم والهلا ومعك إمام الهاشمي قسالا بين محمد بين محمد بين محمد يا خير الأنام وسيلتي أباك إلهي ما يبود مقالا وأنت وأبت البيد والسود فانتهى إليك قديم رام منك منالا وأعنيك خير العالمين وسيلتي باي منيل لدى اليوم رحب نوالا وتيمني watayamani watayamani watayamani hubbi kasirtu mujamjimana alal barri wal ajwa arumu wisala faqadartu awdani wa ahli wa usrati ajubul falalam ashku qattu kalala bay ne bi kawlaqa bay ne kawlaxa baay ne bi kawlaxa tawran aw bi yoofin wa maratana bi baari sa daaril faasiqiina kusaala bi barjiika yawman summa yawman tajawlana bi qaa'ilatin abqi unaaka jamaala li abdil malik يرد موئننا وما لندن أبقي فأبقي على ببيروت أنلزين بالشرق قادما رسول إله العرش وهو تعالى كراشي بعا قلبت على الموادة باي أم نصر دين نبي فعالا قد اعتصموا بالحبل حبل محمدنا كبارا وأطفالا نساء ورجالا ملكوت كل شيء جم جادي برام كبريت لا مار بدوماس باي برام mbaal guy jàpp benn qualité jën borom man da mbaal fardul jaami obi doo maas siidi baraama mbaal gi fees na waaye yépp jën bu ndangaan borom jës moroo taax siidi baraama baada war nay gërëm ko ko tay bi bam xool asamaan allah ku bargaa yi gëm leen siidi barhama am na yenn njanaaw bu ñu gàddoo ma dellu fanaaw barhama wan ma ji gaaw def siidi barhama yooya njanaaw wax ja ñuy wax man daf may dolli aal maj soo bu dégg da nga siidi barama ku bëgg a xaatir siidi barama war ngay daqoog ñoom dang ca jëlee jës bu maj soob siidi barama ibu juuf ne bu min wi jibee bu min wi jibee bu min wi xayaar dal de baay dama yeewu fanaan xaatir barama ibrahima juuf melal ni ki reeteet mu timbili laar temtem gis na ninki nanka moo de barama ibrahima juuf dootuloo noppee fileeg ba ngay dee picca moyeng cee bo lay sab sidi baar ama ba nga àndeeg sa diix ba ci biir kan ma ngir bañ mu gaañu noon ya dañoo dalde bempeeñ Sidi Baar amma ba inverse ñëwee ba ca buntu ma dañoo ngëlamaan Hammaamatu mbaaleel idoon Sidi Baar amma jaani ñangoor jañ fa fekkoon jës bu ko laala laala laala laala laala laala laala laala booba ba tey mu ngay sabaa xibaar amma ba ñuy teeru baay baraama kër amat gay de saabu ya ndaw lu doy waar si di baraama ba watiir ba gornoo ca campement ba keroog ndaw lu yéeme nit ña dañoo dal da si di baraama waa réew maa ca buntu campement ba da teeru suñ baay ne jëmi gi mbindeef ñëw na moo de baraama mardi ja ca saabu ja yor ja doy na kéemaan ba nga ànde commandant ba Sidi Barama commandant cercle ba moo jug taxawoo ne leen ma damay tuural abal faydu Sidi Barama commandant ba tuuru ba mu mu ngay mbaajal baay mu ngay mbaajal baay min toog ca siis ba sidi baar amma ba insaanul kaamil ba tuddee yàlla xol ya rëjjandoor yaram wa nga mel ni meebal sidi baar amma bi barhama kàddoo keroog suma xol bi daf doon leer ni weer maa ngi janoog baxru malakoot sidi baar amma alhamdulilaay nañu sant ibnu abdoulaay saxoo wir da sax ci ànd ak sidi baar amma bëggante boole kook àndoo xol yi lab ci yàlla am na njiit ca pays alam si di baar amaa njiit li soo ko xamut mooy baay ñas ibnu abdoulaye moo de njiit ca pays alam si di baar amaa mboolem alam ya biir mulku ak ya ca malakoot alam boo fi taxaw janook si di barama seydil wujood bi aalamu shood bi baay ñes yaa sowel suñu rooy jàpp suñuy xol yi naatal sidi amaa jëmm yee gëlëm waaye roxo yi xamme nañ la baay yaa de ki leen génnee ciw diis sidi baar xamma yàlla tànn roxoy roxoy kaste ko ci ndamb wàcce ko ca peyi malaw laala sidi baar amaa wàcce ko ca peyi ñeseen dajji ndàmb yooyu ne ku leen gënal gaa roxo yëpp daal sabal si di amaa roxo yaa nga naan baay yaa ngi ñun de xàmmee nañ la yaa ñu dencoon malaw la la si di baar amaa baraama ña sànni leen kàddu ñëpp waa fa ndoor ñu ngay raam daraam faroon baay si di barxama barxama ak naan leen ànd leen teggiin ak tey rabbul jalil moo ma yónni sidi roxo yaa ngay jaayu roxo yaa ngay jaayu roxo yaa ngay jaayu roxo yaa ngay jaayu roxo yaa ngay siikar ñu ngay tudd baat ba nan ko loo wax ñu def ko sidi barama daf ñu leer ne ànd baraama moo de lu ñuy jëriñ nañu àndoo teew ci ron baay Sidi Barama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 الله الخلق العظيم يلا بجكتك رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم يلا يلا بجكتك رسول rasuulillaahi yamma ma gaaya dañoo réer yaa rasuulillaahi allah allah allah allah allah oh. macha allah obligé nax damay obligé nax ñëpp rek xanaa ah, ma nax leen rek massa massa massa massa massa massa sidaat <laughs> massa <laughs> macha allah macha allah macha allah. oustaz lii doy na waar de. ñu noonu àll ak a xew rek. wallaahi muy nit ñi dañu bëgg yàlla. parce que yàlla rek ko wóor. waaw jaam mooy mooy def ay rëcc rëcc bàkkaar. jaam mooy tooñ borom bi subhanahu wa taala. mais bu yàlla taxawee rek. Mm. xol yëpp am na lu wóor. macha allah mais xol bu yëg dara mooy xol bu defaru. Mm-hmm. xol boo xam ni sant nga yàlla ba feebarul. àll mm-hmm. ak Pape xol fa la bëgg yàlla ne. Mm-hmm. xol fa la bëgg Seydina Muhammad ne. xol fa la bëgg mag ñu baax ñi ne. bu ñu tuddee yàlla yëgoo dara. kon doguma la lii ay da def mu ngi soigné ay xol. mi ngi faj ay xol. macha ngi alxal bu yum taxanu kama yum taxanu jasad. xol dañ koy examiner. comme ni ngay sa jëmm ji. macha fa innahu yasqutu aw mhm. boo ko examiner benn mooy gañe nga wala perte nga. Mhm. mais bu ñuy bàkk yàlla nga yëg dara. Mhm. mooy sa xol feebarul. mais boo yëgul dara nag sa xol daa feebar. kon ñi fi toog seen xol feebarul. te yàlla leen fii ci man alal du yaqbanuuna illa man ata allaha bi xalbin salim ba pare tey dañoo am chance balaa ñuy euh, retrouver internet yi ak euh, Mamadou Ndiaye ci euh, régie bi mhm. dañu am chance am ñaari kenn ku ne dell ak xam-xam